Mbar Ndiaye euh, on va retrouver donc Mamadou Ndiaye euh, bu ko defee ñu def d'abord bilan wu euh, feebar bi fii ci Afrique ndaxte ku ne xam na ni dëkk yu bëri actuellement ñu ngi jël seen ay matuwaay suñu dëkkandoo yu Mauritanie nee nañu daanaka amatuñu benn cas boo demee fu mel ni Mali am na nañu coronavirus waaye terewu leen organiser seen élection boo demee fu mel ni Burkina Faso ñoom it ñoo ngi xeex jàngoro bi boo demee fu mel ni Côte d'Ivoire ñoom comme Sénégal ñu ngi couvre-feu euh, comme quoi euh, feebar la boo xamante ni actuellement mu ngi def feu et un peu partout à travers le euh, continent ñu ngi ñuy xamal sax ni Afrique du Sud mooy dëkk bi nga xamante ni daanaka ci Afrique moom la feebar bi gën laal donc nous faisons le bilan nous allons faire donc le bilan ak Modou Ndiaye ñu ngi lay nuyu Modou Ndiaye man damaa amul sens ndax Bijou Ndiaye Mamadou Ndiaye Corombaar Ndiaye ñoom ñetti Ndiaye ci suma ma santoon su santoon Diop de xam naa ci ay saaga laay mujjee ak yéen ci télé bi. dëgg la yow nii nii mais heureusement santu ma Diop ah. <laughs> xam nga kalante kalante dafa neex ah barki yàlla kalante dafa neex man ñi sant ba moom duma leen baal dara mais suma santoon Diop ah. est-ce que xam nga ne ci diggu table bi laay taxaw di leen di leen craché. <laughs> xam naa ne Santo Santo Diop de waaye yow daanaka rek <laughs> li ñuy def di. waaye maa maa ngi mel ni mën nañu ko méngale ku sant Diop. maa ngi mel ni Ndiobène. bilaay yaa ngi mel ni Ndiobène. <laughs> ah yàlla sonal nga ñu sonal nga ñu sonal bi nga xamante ne mais tamit njaayeen ñi sonal nañ la rek de da nga ko dul wax rek yow wala yow yaa mën taxaw gën taxaw ci kaw di wax mais njaayeen ñi tamit sonal nañ la. ah ma de kenn ñetti njaayeen ñi ngeen lim kenn rek ma ci sonal muy Coro Mbaar Ndiaye dotom na Lamine wëree na. non dama nii rek. ŋàppaaral na elle elle a toutes les informations. mi ngi noonu. elle maîtrise tout. elle connaît tout. elle me dit tout. Uh-huh. et elle me fatigue partout. <laughs> donc kooku rek. équivalent su njaayeen du monde la. mu ngi alors donc euh, on va démarrer ak bilan bi en Afrique Covid 19. Mm-hmm. Euh, encore euh, ñi nga xamante ni ñoo nekk ci euh, monde du football ñoom it ñoo ngi ci. voilà ñëpp ngi ci Pape Cheikh comme ni nga ko waxee Afrique actuellement sànq euh, lim bi nga commencé ci dëkk bi nga xamante ne mooy Afrique du Sud moom mi nga xamante ne mën na jàpp ni mooy dëkk bi nekk ci Afrique bi gën a bi nga xamante ne jàngoro ji moom la gën a laal ndaxte actuellement ñi ngi compté euh, euh, trente mille trois mille trois trente mille mille trois cent trente quatre Euh, cas yu nga xam ne ñu ngi ci dëkk ba Égypte pareil trois mille trois cent euh, trois mille trente deux cas yoo xam ne noppi noté nañ ko ci dëkk ba tamit euh, Maroc topp ci ak deux mille six cent quatre vingt cinq cas ak topp ci ak deux mille cinq cent trente quatre cas donc li ñu noté ci Afrique ci ci tund Afrique bi Afrique du Sud moo ji moo ëppale ay cas yi nga xam ne dañ ko confirmé fii ci tund Afrique bi nga xamante ni ci week-end bi wax nga ko Mauritanie la ñu ñoo joxe annonce bi nga xamante ni actuellement mbégte la ci ñenn ñi nga xamante ni aussi foofu ca Mauritanie ñoom annoncé nañ ne sept cas nga xamante amoon nañ ko ci coronavirus bi euh, si si wér nañu benn nit ki nga xamante ni euh, moo fa ñàkk bakkanam euh, ci si si ci sept cas yi ñi ay jigéen lañu ñett ñi di ay góor loolu la waa Mauritanie joxe waaye li ci gën a am solo tamit lu mat a bàyyi xel la ndaxte lu toll ci sept cent cinquante contacts yi nga xamante ni dañ leen def quarantaine actuellement di xool fii ak fan yi ñu fan yi ñu jëm wala quinze jours yi ñu jëm fan la wanante gi di mujjee di gë gëtëm en tout cas liñ mën a noté mooy di nga xamante ni ok euh, dëkk bu frontalier la ak Sénégal amul benn cas bu positif bu ñu fa ñi ci des loo xam ne ci ay lim la ci nit lu toll ak 750 personnes yoo xamante ni dañ leen a quarantaine di xool ba xam ndax dinañ am euh, coronavirus bi wala déet en tout cas liñ ci mën a jàpp rek moo di Mauritanie moom euh, actuellement ñi ngi sant bu baax a baax en tout cas di ko ñaanal Sénégal di wax ni toujours di gën di sensibiliser rek nit ñi comme que léegi moom sol masque nga xamante ni aussi ñëpp ko war a mën a def actuellement fépp mën a toll actuellement da nga war a mën a sol masque te loolu dañu war a renforcer sensibilisation bi ngir gën a mën fexe jàngoro bi jóge fi leneen li ci mën a jàpp rek Pape Cheikh mooy eh, footballeur naa ko wax actuellement eh, vidéo bi nga xamante ne moo def buzz ci weekend bi mooy bi nga xamante ni eh, mooy nañ ko pour gën a créer benn onde positive pour mën a jàppale ñi nga xamante ne ñooy personnel de santé yi vidéo bi partagé nañ ko mu nekk vidéo bu nga xamante ni gis nañ ci sportif yëpp wala ñi nga xamante ne ràññee nañ leen lool ci wàllu tàggat yaram surtout ci wàllu football ngir mën a tàccu ñi nga xamante ne ñooy personnel de santé yi je pense mën nañ proposer téléspectateurs yi ñu seetaan ko ñu te allez on regarde la vidéo euh, pour xool sportif yi ak euh, ondes yu positive yi nga xamante ni bëgg nañu ko partager ak euh, euh, nit ñi surtout en cette période de crise c'est chouette regardez ce qu'ils ont fait. waaw donc ñoom ñëpp ay sportif lañu. Euh, tendance bi ci dëkk yu bëri mooy fu 20 jotee ñoom ñëpp euh, tàccandoo. Euh, ñi nga xamante ni ñooy liggéey ci hôpitaux yi et c'est bien tàcc bi baax na. baax na kay c'est c'est il le mérite parce que il se bat sans relâche pour euh, sauver la vie des gens ñi nga xamante ni dañu feebar am feebar bi di coronavirus donc chaque jours ñoom ñi ngi ci di daw euh, ñit ñi tamit ñun ñi nga xamante ni duñ nekk ñu ci personnel de santé yi wala ñi nga xamante ni ñooy population bi dañ leen war a gën a mën a jàppale ci loolu ci domaine bi nga xam ne moom la ñu nekk ku ci nekk gën a jàppale leen ñii nag lii lañ choisir mooy sportif yi gis nañ ci kanam ku ci nekk ñoom Maradona Pelé Beckham ak euh, nga xamante ni aussi ñoom Yaya Touré ñi nga xam ne ay ñoo xamante ni ñi nga en activité wala ñenn ñi nekk nekkatuñu en activité ñoom ñëpp Euh, tàccu mu nekk li nga xamante ni c'est initiative di ko initier ci ñëpp ñi nga di ko lancer nañ ci mën a jàpp nit ñi xam nañ leen war a mën nañ gën a mën a sensibiliser ñu gën a mën a sensibiliser ngir fexe euh, feebar bi yi euh, ñu leen won ak footballeurs yi nga xamante ni ñu ngi def seenuk tàccu vidéo bi def tour du monde voilà takk masque bi dafa Euh, obligatoire loolu itam euh, ku dugg ba génn dinaa la bàyyi nga euh, fàttali ko téléspectateurs yi ana sa mi voilà sama masque. sama kër laa nekk moo tax yi ah. il faut pas nit yi loolu tam nañ ci nañ ci insister xam naa on va sensibiliser dans quelques minutes ak euh, Ndiaye euh, xam nga dañu ne masque bi da nga koy takk pour protéger sa bopp waaye protéger itam ki ngay waxal dama ci gis ñoo xamante ni classe toog gi. dañuy takk masque buñ la jibsee ba taxaw sa wet moment bi ñuy wax dañuy dindi dindi masque bi bu waxtaan ak yow. pare bu ñu waxee ba pare. amul benn yow yow yow yow xaaral ma wan la lii daf maa naqari yow kii noo tuddati fàtte naa sa tur sax. yow lii ni ma naqaree. ñoom daal xam nga lii normalement su ko takkee je me je me je me protège et je protège <laughs> normalement ki ma jàkkaar lool. <laughs> waaye ñoom xam nga lu ñuy def mook Pape Samba Thiam ñoom daal buñ ma buñ ma jibsee rek ne euh, euh, bi man leen <laughs> eh, waay <laughs> laat lu tax ngeen may bëgg a wàll feebar bi loolu loolu amul sens masque bi comme ni nga ni nga il faut pas l'enlever pendant qu'on parle ah pendant quelqu'un ah oui ah oui c'est très important mooy mooy message bi mais en tout cas dul jóg ci sensibiliser rek sensibiliser sénégalais yëpp léegi na ñëpp di sol seen masque ngir protéger sa bopp protéger euh, population bi mais aussi pour gën a mën jàppale ñun ñu suñu bopp ñun sénégalais yi mais jàppale monde entier bi yëpp ndaxte képp ko nga xamante aussi fexe nga benn yoon ba xeex ba feebar bi jóge fii di mën a jàppale ndaxte actuellement comme ni ko waxee lépp a taxaw sur le plan économie est-ce que attan ko attan ci jël say responsabilité ngir fexe euh, sensibiliser wala jàppale fexe aussi euh, xeex lii di coronavirus te loolu lu am solo la actuellement voilà et je vois beneen njaayeen boo xamante RTS la fait c'est bien fait pour toi yéen daal da ngeen doy waar mais yàlla baax na. yàlla waxul kenn dara merci beaucoup Mamadou Ndiaye oh, oh, pour terminer dernière question balaa ñuy jël Coro Mbar Ndiaye waaye waa Médina yi doon accueillir famille bi ci quarantaine ñu la ba nga dee rek <laughs> wala doo ci wax <laughs> non si mën nañ ci wax ndax toujours Pape xam ne dañuy wax Médina parfois à la limite dafay nekk mujj nekk gerte des quartiers. ñii dañoo neex. xam ku ci nekk quartier bu ci nekk yaa ngi bëgg a fexe sa maire di góorgóorlu <laughs> sa sa sa say population di góorgóorlu ku ci nekk fa nga dëkk yaa ngi fexe naa non ñun suñu quartier mais Médina vraiment. comme ni ko yenn xas sénégalais yi di waxee ci Twitter bi. Eh. ñoom lañ tuddee quartier bi nga xam ne moo jël record quartier coronavirus à la limite est-ce que duñ changer tur bi sax tuddee ko quartier damay tooñ. astafurlah <laughs> <laughs> en tout cas yàlla baax na. damay tooñ c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai que buñ duree jàmm mais bon quand même euh, faudrait que nit ñi gën jël seen ay euh, responsabilités merci beaucoup Mamadou Ndiaye. Euh, gërëm la ci toog bi nga toog sa kër comme ni ñu koy diggalee téléspectateurs yi à chaque fois ñu soxla leen ci bi mën nañoo def li nga xamante ni moom la tubaab tuddee télétravail retrouve à tour de rôle chacun chez lui wala euh, chacun chez soi bu ko defee ngeen développé euh, sujet yi nga xamee ni moom ngeen préparé